mais l'affaire Branco sama yaakaar naa ni nga baal ma oo mhm. j'ai beaucoup de respect pour la presse mais tey guddi yi ñu toll ma tax xamul Sénégal li ñu bëgg mhm. mais ñu dëkk njëkk a tëggal sabat bi Sonko euh, bi euh, Branco def loolu mais c'est de la presse mais une presse doit être patriotique

Ousmane Sonko daan taxaw naan France dégage. ok Sénégal dañu taay avocat. Mm-hmm. mais loolu gàccee la ci laa wax ci Ousmane Sonko war a Sénégal suba amuñu bàyyi fay avocat mun na sa jël yenn avocat mais kuy ba fëkki seen bunt ma nee avocat toogal fi xam nga Branco nga xam nga bu baax a baax bu taxaw naa ko dama ci xaj laa koy wax. nga baal ma non non non loolu racisme la. Ah, ah, mais yow mais bu dul dara sax foofu laa famille judiciaire yow di nga mën a bàyyi yow man man man man nit jóge fële ñëw. Mm-hmm. même bu dul sénégalais sax sénégalais. taxaw di wax ni jàpp ni mais procureur c' est l' état procureur du waa APR mais li ma ci teg ba xam mooy lan mhm. ñu ngi naan wëy wëy contrôle judiciaire bi ndax Branco day jël billet avion non c' pas ça xam nga un avocat aussi en statut en statut je sais pas comme dans le fond du jeu tey jii boo bëggoon jàpp benn avocat bon xam nga le flagrant délit de couvre non mais yaakaar naa avec la coopération judiciaire mais Branco mais procès bi ñoom mën ko mën nañu ko juger France dañ ko parce que y a les commissions rogatoires. Mhm. maa ngi dégg ñuy wax naan ay France day jël avion mais c'est pas ça le juge bi ko inculpé mais commission rogatoire lay def foofu chaque mois mën na dem di émarger. Mhm. bu ñu koy juger s'il y a de le juger mais on peut le juger et le condamner. d'accord